voilà egsi nañ si donc damay bàyyi Fatouche mi nga xamante ne tout tout le temps traficu jeunes yi euh, moom lay lijjanti mu daal di euh, càmbar li nga xamante ne moom la indi tey moo ko invité. waaw dox dox bi euh, jeune lay waxtaanee tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom mooy jeune et fuite waaye nag duma ci wéet benn yoon parce que dama ci jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy professeur philo parce que bu ñu waxee fuite yi ci philo bi la commencé ba ñëw ci nga xam ne moom mooy épreuve yu mujj yi donc monsieur Kourma ma lay dalaatal ci plateau bi nga xamante ni moom expliquer téléspectateurs yi avant ñuy dugg ci question yi lan mooy circuit euh, baccalauréat d'abord pour ñi ko xamul woon ko. waaw euh, circuit baccalauréat dafa ci ay épreuve d'abord épreuve yu office du baccalauréat mooy tànn ay professeurs yu xarañ bu leen tànnee ñu daal di proposer bu proposer ñi jël épreuve yooyu jox ko ay inspecteurs généraux d'enseignement ñooñu ñooy xayma sujet yi xool ko bu dee am na lu ñu ci war a soppi ñu soppi ko. Euh, bu ñu jëlee sujet yooyu jox ko office du bac ñoom ñu jël saisie bi toppatoo ko def tirage bi def euh, paquetage bi def ko ci ay maal dal di toppatoo transport bi mu dem ci centre d' examen yi bu demee ci centre yi ñu jox ko les chefs de centre ñooñu ñooy yor euh, maal yi nga xamante ni ñoom ñooy def sujet yi ak caabi yi bu fekkee ni bés bi ñu war a def épreuve jot na dix minutes quinze minutes avant les épreuves boobu la président de jury bi di ñëw Euh, chef de centre bi tijji dal di ko jox euh, enveloppe ba bu ko joxee enveloppe bi épreuve ne moom bu ko tijjee foofu day dem ba ci salle bi euh, jàkkaarloog élèves yi woo quelques témoins ñu taxaw mu dajji ci seen kanam enveloppe bi nag dafa am benn sachet bu nekk ci biir benn mbuus bu oyof kenn mënu koo laal te xamuñu ko ce qui fait que double protection la am bu président de jury bi ubbee envelop boobu ca lay jël. épreuve yi daal di ko jox euh, surveillant yi ñu daal dem ci salle yi daal di ko distribuer noonu la mbir mi di tëddee pour pour wax la ci circuit yi épreuve yi. d'accord pour épreuve yi avant circuit yi yenn yi ci professeur la ñuy tànn pour ñu tànn épreuve yi pour jox ko waa office bu bac naka lay demee. waaw dañuy tànn ay euh, professeurs yu xarañ yu nga xamante ni euh, xam nañ leen ci njàngale mu xarañ buñ leen tànnee ñu daal di jël ñoom bu ñu proposé épreuve dinañ toog juróomi at duñ ko proposé seen classe. donc ñi nga xamante ni aussi nan lañ koy jox ñooñu du ñu n'importe kii euh, ay nit ñu xarañ lañu doon boo gisee philosophie ñett lañ ci ba badandooy lenn ak ramatulaay ñooñu ñu xarañ lañ euh, ñu mel noonu nag kenn xalaatul ci ñoom ay fi di fa jógee parce que ñooñu ci boppam lépp luy wàllu philosophie bu ma jëlee exemple ndax moom lay jàngale ñoom ñoo koy toppatoo di ko aar di fexe ba njàngale mi jaar yoon di fexe ba programme bi jaar yoon donc ñooñu tey kenn xalaatul ci ñoom loolu jóge fa li ci des nag mooy saisie bi ak tirage bi foofu moom wàllu office ju baccalauréat la bu leen ko joxee bu fekkee ne tirage bi ak saisie bi jaar na yoon ak paquetage bi je crois que circuit boobu bu fekkoon ne verrouillé nañ ko sécuriser nañ ko kon tey li ñu wax ci fuite euh, mën na bañ a am mais aussi du foofu rek la mën a génn mën na dem ci transport bi mën na dem ci euh, chef de centre yi euh, foofu nag duma fa xuus lu bari ndax euh, bëgguma accuser kenn enquête bi mi ngi en cours. Mm-hmm. est-ce que pour yéen yéen professeurs yi da ngeen di da ngeen di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy waa office di BAC euh, wala ñi nga xamante ni moom kook ki nga xam ne moom mooy président jury bi. waa centre bi ñan ngeen yaakaar ni ñoom ñoo war a génnee lu ni mel. waaw ñun ay jàngalekat lañ dañu war a objectif objectivité mooy bu fekkee ne enquête dafa jóg di téye ay nit di leen déglu parce que woo nit mu ñëw rek taxul nga tëj ko danga koy déglu. boo ko dégloo euh, xool li mu def ak la mu war la mu deful bu boobaa nga koy nga koy nga koy xool ña ngi koy jébbal ñooñu jugé ko teg ko ay daan kon fii ñun mënuguñu gaawantu naan kii la ñu yaakaar ne moom la wala kële la ñu yaakaar ne moom la li ci nekk rek mooy ñi ñi ngi def seen liggéey ci wàllu enquête bi nañ leen bàyyi ñoom ñu terminer ko bu ñu ko terminer bu boobaa lépp leer. est-ce que financement baccalauréat baax na ba nga xamante ni am nañ instant bi problème ñi tirage beeg déplacement yeeg transport yi est-ce que bu ñu amoon financement bu baax est-ce que dinañ am problème yu ni mel. waaw xam nga baccalauréat Sénégal ca jamono yu njëkk ya boo jëloon ay quatre mille neuf cent quatre-vingt soixante ak léegi bokkul li tax bokkul mooy nombre bi dafa évoluer drastiquement donc nombre boobu évoluer mënoo jël yenn moyen yi di ko defee bag bi. bac dafa laaj ay moyens yu dëgg te moyens yooyu nag la ñu sentirul ci baccalauréat boo xoolee euh, bac bi ni muy doxee nga xam ne am na lu fu mu sooxe sooxe na déjà ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci circuit épreuve bi maanaam ñiy def tirage bi ñiy def saisi bi parce que diggante saisie bi ak tirage bi nit waru fa woon taxaw waroon na chaîne de machine yu nga xamante ni ñooy toppatoo loolu yëpp ba dugal ko ci ay enveloppe te te nit du ci jot kon loolu problème mu moyen la problème mu transport bi aussi doy na waar dëgg parce que office du bag amul ay moyen jaa xam foofu duma ko reprocher problème mu moyen parce que état bi moom moo war a jël ay moyens yu doy def ko ci baccalauréat bi def ko ci tamit ci correction bi def ko ci correction bi def ko aussi ci biir épreuve yi maanaam ci lu mel ni euh, interrogation orale parce que benn copie bu jaree 500 loolu sooxee na trop ndaw na. interrogation orale nga toog 15 minutes 20 minutes interroger élève ñu fay la 300 francs te 300 francs yooyu ak 500 yi lenn nga cay jot mooy booy déplacé wu ñu jox la frais de déplacement te professeurs yi tardivement la ñu jot seen frais de déplacement lu metti la leneen li mooy bu ñu defee seen i euh, examen ba pare ba lépp jeex ba ñu euh, jël ordinateur yeeg yëpp delloo office du baccalauréat mooy président de jury bi dinañu toog mois de juillet mois de juin mois de juillet août septembre octobre novembre ba décembre léeg-léeg dinañ dem ba janvier duñ jot seen xaalis loolu doy na waar war nañ ko xoolaat bu baax a baax loolu day wane ne rek problème mu finance am na ci baccalauréat bi te sécurité bi aussi moyen moom moo koy def ñun sax dañ doon xalaat ne dañu trafiqué euh, machines yi mais foofu aussi dañ fay dal rek te lu ci mënti nekk rek mooy Sénégal dañ toll nañ fu nga xamante ni war nañu delloowaat yépp ci ay moyens parce que koy doxal da am say moyens yu politique des hommes qu'il faut à la place qu'il faut mais aussi des moyens pour réaliser sa politique et moyens yooyu dañ ko war a def ci baccalauréat bi pour permettre aux jeunes élèves aux aux enseignants ñu mën a doxal seen liggéey ni ñu ko bëggee. yéen professeur lan ngeen di faral di tuddee lu tax ngeen di wax bassin de correction avant ñuy ñëw ci ndayu mbili gi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy élèves yi. waaw bassin de correction mooy dafa am ay dëkk ñu nga xamante ni bu ci mel ni Dakar bu ci mel ni Thiès professeur yi nga xamante ni ñooy jàngale foofu ñoom ñoo fay corriger. te ay jamono yu yàgg yi professeurs yi dañ leen doon dañu jël waa Dakar yóbbu Ndar tas leen ci Sénégal jël waa Thiès indi leen dakaar jël waa Ziguinchor indi leen dakaar ñu defee noonu mais léegi dañu gis ne euh, office du bac dafay sakkanal maanaam dama naan sax état bi mooy sakkanal li muy sakkanal mooy professeurs yi boo koy déplacé danga nga koy jox frais de déplacement frais de déplacement yooyu nag koppar gu bari la pour éviter loolu man loolu laay wax parce que dañu objectif moo tax ba ñu ne waa Thiès nañu corriger élèves Thiès. yow nga nekk professeur jàngal élève bi euh, jox ko ay xarañ ay ay jumtuwaay ci technique dafa am technique dissertation am technique bu commentaire léeg-léeg sax sa empreinte dina nekk ci élève bi nga jàngal ko at ni jeex nga ngay corriger copie léeg-léeg nga lire ba lire sa bopp parce que sa empreinte dafay nekk ci élève bi parce que da nga koy corriger le sujet corriger laat ko corriger laat ko corriger laat ko parce que mënoo joxe mun a joxe commentaire te corrigé loo ko te yow mi koy corrigé dañ lay déglu xale yi dañ lay déglu te ñooñu bu ñu la dégloo dañuy mel ni bu ñuy corrigé dañuy fexe mel ni yow bu ñuy mel ni yow nag yow booy corriger ay copie ba gis lu mel ni yow da ngay xam ne lii sa copie élève la est-ce que ndax foofu objectivité dina fa am bu fekkee ne professeur yi moom ci boppam ay résultat lay wut ni ko parent d'élève bi di defee kon nag nañu delluwaat fa ñu nekkoon mooy ñu jël ay moyens jox professeurs yi ñu déplacé wu te ñu fay leen à temps gis que ni 2017 bii ci lañ ko gën a gën a remarqué que ni fuite bi dafa gën a gën a bari lan moo tax loolu professeurs yi defatuñu seen liggéey wala xale yi ñoom aussi jàngatuñu. professeurs yi jàngale ña ngay jàngale ba léegi xale yi doon jàng ñu ngi jàng ba léegi. xale yi jàngatuñu à jàng am na ñuy xale moo tax ma ne la xale yi doon jàng. ñu jàng ba léegi. parents d'élèves yi nga xamante ni seen njàngu doom moo leen ñor parents d'élèves yooyu ba léegi seen njàngu doom moo leen ñor mais dafa fekk na àdduna day dox. waaye ci parents d'élèves yooyu sax doguma la euh, monsieur Kourouma est-ce que euh, parents yi nga xamante ñoom ñooy soutenir seen doom yi à ce que ñu jël ay ay ay ay di ko toj ay fuites est-ce que loolu c'est normal. xam nga yëpp problème mu la rek normal ak lu normal lu xam nga parent d'élève bi jël bi dégg ne doomam yor na fuite portable am. Euh, mu mu mu koy utal ku ko ko kooku dafa jàpp ne lii lu normal la. Mm-hmm. du dëgg kon keneen nit jàpp na ne loolu lu normalul la donc normal ak lu normalul loolu moo koy jox signification par rapport ak intérêt mais par rapport ak objectivité xam nga parent bu demee ba yegg foofu rek xam ne crise des valeurs am na te ci parents yi la ñu waroon xaar nga gis sa doom mu yor fuite nga topp loolu dem porte ji plainte yow mu sa jëmi bopp élève bi aussi bu valeur yi nga xamante ne la ñuy xaar ci nit nekkul ci moom moom waroon na demit gis fuite boobu dem porter ji plainte loolu aussi defu ko ñu gis ne parent yi nga xamante ni jot nañ ci épreuve yi porté wuñ plainte élèves yi xamante ni jot nañ ci épreuve yooyu porté wuñu plainte mu wan la nag ne nit rek moo dellu si waat nit li mu dellu see mooy mel ni mu mel nekkul ne ku baax bu bu baax a baax bonul ba bon a bon mais dafa nekk ci diggante bi léeg-léeg nag ak ay intérêt bu taxawee day fàtte lu bon a bon li nekk ci diggante bi di balancer. kon tey moo tax euh, ñu ne rek nit ci boppam dafa am nu mu bindoo. waaye nag loolu du tere valeur yi nañ ko fa delloo. nañu delloowaat xale yi ci diine. delloowaat moo tax système ma ne système bi dañ ko war a dañ ko war a waat wala ñu daal di def euh, ñu daal di def réforme de parce que diine dañ ko war a delloo ci njàngale mi. élémentaire dañ faa war a delloo njàngalum Coran delloo fa catéchisme ñu nekk ci diine bee jàng seen diine ñu nekk ci beneen diine jàng seen diine loolu bu ñu ko ci delloo valeur dina delloo si parce que parent bi nga xamante ni dafa toog ba am doom amul lu ñuy sangoo janaaba dem ba am doom bi def terminal di laajte nu ñuy jullee nu ñuy defaree julli kooku naka lay dugalee doomam ci diine loolu mooy problème bi nañu delloo xale yi ci diine jàngal leen war leen suñuy valeur delloo leen tel maam ya nekkoon ëllëg parce que euh, mondialisation vitesse bi muy doxee mmh. ñun suñu jëm bopp dañoo war a enraciné wu sinon rek ñu dal di disparaître. perte des valeurs Khady si vous euh, euh, nga xamante ne moom la ñu dund ci bac bi est-ce que nekk woon di profiler wu à l'horizon bu bu ñu sukkandikoo ci concours général bi ni mu demee ak yeneen ak yeneen est-ce que jotul woon vraiment laataa ñu ciy dugg ñu jël matuwaay yu euh, yi yi mat pour mën ko éviter beneen question bi moo di bac 2017 bu Sénégal mën nañu nekk actualité la fii mais actualité la ci àdduna bi yëpp est-ce que ragaloo ni mën na ontage entaché réputation Sénégal ba vraiment ñu nit ci wala euh, suñu yeneen dëkk yi di ci jiixi jaaxal. waaw yow xam nga da nga da nga sax sori booy wax concours général man dama lay wax ci biir baccalauréat bi mooy épreuve philosophie. Mm-hmm. épreuve philosophie bi bi ñu ko defee ba ca suba sa professeur philosophie yu bari yuuxu nañ daal di ne am na fit mm-hmm. mais gis nga loolu rek bañ buñ ca yemoon jox ko gëddëm bi ñu ko war a jox. dal di def enquête yi ñu war a def. investigation yi ñu def tey ci histoire bi ak ci français bi ñu defoon ko ci philosophie ñu toll fii ñu toll kon dinañu revoiraat système bi xoolaat épreuve yëpp ndax fuite bi entaché wu leen ñoom tamit gis nga loolu buñ ci yemoon tey ñu yegg si fii beneen question bi mooy euh, li nga wax ci àdduna bi image yu Sénégal lii mënu ko entaché gis nga fuite dëkk yëpp la am boo demee ci dëkk tubaab bi dafay am waaye ñoom dañuy xama jàngee ci seen i ci seen i ci seen i difficulté jànge ci seen i faute di corriger fit am na Sénégal yàgg naa am Sénégal ci ay échelle yu nga xamante ni doy na waar élève yaa ngi fi woon dëgg dañuy falsifier ay not yooyu yëpp yu nekk la yooyu day wara ne système bi dafa sooxe système bi dañ ko war a changer waaye Sénégal lii mënul yàq ñun suñu taxawaay ci àdduna bi te nit ñi mënuñ yàq aussi taxaw ci biti di yàq Sénégal doxalinam ci wàllu njàngale parce que ñun euh, boo xoolee ku mel ni Souleymane Bachir Diagne fa mu nekkoon jàngale fa ba ñu dox ko li ñu koy jox ci wàllu raay nekk ci xalaatkat yu gën a mag ci àdduna bi Sénégal tamit yeneen xale ñu ngi fi di jàng kon fuite yi Euh, taxul loolu yàq dara mais Sénégal boo demee ci concours yi nekk ci àdduna bi yëpp université yi gën a mag xam nañ ne ñu xarañ lañu ñu ñu ràññee lañ ci wàllu jàngale kon loolu warta yàq dara te du ko yàq